Il faut agir localement, mais il faut penser globalement. Penser globalement mooy lan bàyyi xel ci li xew Niger li xew Niger li waa ji doon wax on croit mourir euh, pour la patrie alors qu'on meurt pour les industriels ñun nit yu ñuul am nañ sañ-sañ wax ne bépp soldat sénégalais ñaanuñu ko yàlla bu dee Niger bu fi kenn wax ne ils sont morts pour la patrie ou contre coup d'État en réalité ils sont morts pour l'humanité par les accords de partenariat économique et le néocolonialisme gars yi réew bu nekk garde à vue ndaxte ñun dañoo nekk garde à vue français fa garde à vue la di jëfandikoo làkku nasaraan ba dem garde à vue